sant serigne bi bu baax bu yeesal suñu talibé ci serigne Touba diko jaarale ci ki ko fi nekkal muy Cheikh mohammed al Mountakha ibn Cheikh mohammed al bashir tay ñaan yàlla yàlla yagal taxawayam may ko katan ba liggéey bi mu liggéeyal l'islam liggéeyal ko maamam mu def ko nim ko bëggee te moo ànd te noo ànd ko moom di nuyu Cheikh Mouhamadou Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ibnu Serigne Touba mi nga xam ni moo yor kàddoom tey yor kàddu gi njabootu Serigne Touba gépp di jël suñu ziyaara ak suñu nuyoo di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci njabootu Serigne Touba bi yëpp di nuyu imam ratib Cheikh Mahamadou Bachir Lo ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéey bi fii ci Masalikul Jinaan di nuyu mbokk taalibe yëpp di nuyu jullit yëpp di lensan sant turu sëriñ bi di leen santit ci turu cheikh Basir. bachir mi nga xam mo ñu indil cantuk sëriñ bi ci liggéey bi nga xam ni na mu ko waxe ca njaalbeen ba tey ñoo ko ànd ànd ko àndin mu rafet ba tey jii li nekk sabub lislaam bi yëpp nu ko nit ci mujj nga xam ne ñëwoon na fi ci weer yee ñu génn doon leen xamal tamit ni bi am na beneen fànn liggéey boo xam ne bii mooy li nga xam ne mooy mottali programme bi ñu waroon a def fii ci Masaalikul Jinaan muy institut islamique bu rëy bii ñu fi war def defal ko Serigne Touba ak li nga xam ne moo desoon ci liggéey bi muy loo xam ne lii booba ba léegi ñoo ngi nekk ci ay waajtaay ci maanaam ay di def li ñuy wax ay étude ay pré étude yoo xam bu ñu noppee ba jébbal lépp sëriñ bi rek bu neexee yàlla ñu daal di koy tàmbali ndax moo nekkoon programme bi nga xam ne moo doon programme global bi xam ne mooy institut islamique de recherche Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni jàkka ji benn la ci li nga xam ne lii mooy programme yi eh, di tamit xam ni dañoo nekk ci waajtaay di sentu magal gi nga xam ni moom la ñuy at mu nekk ci ndigalu Serigne Touba li nga xam ni ci première semaine u mois de octobre lay doon ngeen ni tamit da daan am ay waajtaay yoo xam dan dañ ko daan faral di def mu doon ay colloque wala mu doon ay symposium wala mu doon ay ay journée culturelle yoo xam ni dañ ko daan waajal màggal gi fii ci ndakaaru di ko ko séenoo ba pare doo ko dem màggali Touba mu daje nag ren boo koy seet ni ko fi sëriñ bi waxee bi mu fi ñëwee ci ubbite gi ci mois de septembre le 27 septembre 2019 nga moom màggal gi daanaka liy dox seen diggante xam naa ne ci fukki fan lay doon te comme daf ñu joxoon ndigal ni at mu ne ñuy préparer ngir waajal màggal gi nga xam ni mooy Serigne Touba gi ñu def programme spécial ci bu weer wi rek di benn fan ci safar ñu tàmbali di ko waajal màggalu Touba ci manifestation culturelle yu mel noonu ba dem Touba ren nag mu nar coïncider ci ndigalu bi ak fi ci Ndakaaru ay xew-xew ñu bëgg boole xew-xew yooyu yëpp comme nañ leen ko diggee woon ba ñuy ubbi jumaa ji mu nekk semaine culturelle lu ndakaaru boo xam ni ak mu ne dañ koy waajal mu nekk semaine culturelle ba ba ñuy dem di màggali Touba at mii nag ku ne xam na ni màggalu Touba ci première dizaine décatu mois de d'octobre lay doon sëriñ bi jox ñu ndigal ni nañ fi def semaine culturelle bu yaatoo yaatoo yaatu ba nga xam ni xew-xew yi am biir Dakar muy ñaari guddi ndakaaru yi te diñ ko daan màggal di tamit julli gi nga xam ne gii moom la julli woon ci géej gi ñu di ko màggal ak li nga xam ni mooy 27 septembre nekk date boo xam ne bii date anniversaire ubbiteg jumaay Masaalikul Jinaan la ñu bëgg a boole xew-xew yooyu yëpp def ko ci benn semaine boo xam ne bii day doon semaine culturelle boo xam ne bu mag boo xam ne dañ koy waajal màggalu Tuubaa buñ ko defee ba la le 27 le 28 นี่ดอกนักดัดดีวัดดอกเดินตัวมันเข้าเข้าบอกคำนี้พี่เข้าเรีเร่เรดอนงั้นคำนี้เดี๋ยวบุบกูหลังก์คำนี้ลีอามอนนั่งกุชิคูเวอร์ติร์ดังก์คำนี้โมดอนเวอร์ติร์มาสั่งลิขิตนันดิชิคูปิตเกิดานักนั่งมุมเมลอนจิเมนอัปตารุอังนั่งมุมเมลอนอัปปัสปัสเป็นงั้นคำนี้มุมเลตัลีเบย์อามอนจุลิกิอามอนโคนี่ดัจเจฟี def semaine culturelle boo xam ne bii dina am ay exposition yu mag a mag a mag dina am tamit ay conférence yu mag comme niñ ko defee woon bi ñuy def ouverture bi dina am tamit ay ay ay ay waxtaan yoo xam ne yi dañ koy waxtaan jëme ko ci li nga xam ne mooy yoon wi ko ci li nga xam ne tamit mooy diine ji jëme ko ci li nga xam ne tamit mooy situation yi nga xam ni moo nekk dans le monde comme niñ koy faral di def rek nga xam ni dañ koy waajal nag mu nekk waajtaay woo xam ni waa Ndakaaru gépp ak li ko wër dañuy fiy ànd màggal ko def ko muy julli géej gi def ci tamit ñaari guddi ndakaar yi ak ubbite gi nga xam ne gi mooy ubbiteg Masaalikul Jinaan loolu daal mooy ndigal li nga xam ne tukkee woon na ci sëriñ bi tàbbi fii ci Cheikh Mouhamadul Bachir mu ñëw indil ñu ko moo taxoon mu ne woon dinañu baaxe ñëw fii tey ci àjjuma ji julleeg ñu indil ñu ñaanuk sëriñ bi soññ tamit ci li nga xam ne lii mooy liggéey bi soññ ci li nga xam ne lii mooy àndandoo geeg bendandoo gi te xam ni ñun taalibey murit li ñu war mooy toog di déglu ndigal bu ndigal ñëwee rek ñu jëfe ko leneen waruñu lu dul déglu ndigal ndigal li mu jóge ci ka ko war a joxe muy Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mourtada Mourtada Muntaxa bu ñu ko joxee mu wàcc ci moom rot si ci ñu ñu daal di koy jëfee def ko ni nga xam ne bii moom mooy li ñu war mooy jëfe ko ni ko sëriñ bi bëggee bu ñu ko defee ni ko sëriñ bi bëggee daal di am li nga xam ne lii moom la ku nekk bëgg cib taalibe muy ngërëmul sëriñ bi sëriñ bi nag waa ndakaaru yii wax dëgg yàlla ameel nañ leen cant ameel naa leen ngërëm ma di la ko seedeel yow mi nga xam ni yaa ma teg ci seen ci seen kanam lépp loo xam ne na fi yow jóge ci sëriñ bi bu leen ko waxee dañuy daal di ànd ak man def ko noo xam ne nii dina ëpp sama njor lii nga xam tamit mooy ndigal lu yees tàbbi fii E nanga ci rafet njort te nga ni sëriñ bi dinañ ko def ni mu ko bëggee nañu ñaanal ba sa borom dimbali ñu kattanal ñu ba nga xam ne bii buñ ca eggee ñépp dinañ maase xam ni la nga xam ne moo doon ndigal lu jóge ci sëriñ bi matale nañ ko ndax ñu mën a am ngërëmam yow nag ñoom lay def beral sa cant bopp cant koo xam ne gii ñun ñëpp ñoo la ko yoreel kuy taalibe murid rek yoroon na la cant gi ndaxte nii nga nekkee ci yoon wi nekk tànku sëriñ bi nekk làmmiñam nekk bëtam day loo xam ne yombul waaye nag sa maam ji nga xam ne mooy sëriñ Touba moo la tànn moo la ko liggéeyloo moo la koy yoral ba lépp dina woyof ndaxte kat jiitu moo metti jiitu nag metti na waaye am na pay pay gi nga xam ne ku mës jiitu ku ne ba def ko nan ko nañ la ko sante woon yàlla bu la loolu umb yàlla na sama borom defal na ko muy pay goo xam ne gii fii mu yàgg lool ba nga xam ne bii dinga ci ko defee noo xam ne nii ni nga ko bëggale ak ni ko sëriñ bi bëggee mbokk taalibe yëpp ñoo ngi maase di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàlla kàttanal la di la ñaanal yàlla yàlla wéral la di la ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi nga nekk ci suñu kanam dina jottali ndigali sëriñ bi ñu koy jëfee ni nga xamee ni bii moom la ko sëriñ bi bëggee ndax boo ñu ko woyofalul woon dina jafe ndaxte ñun sëriñ bi rek la am ndigalam rek lañuy ñuy déglu waaye ndigal loo ñu indi di nga ci jàpp ba daanaka dañuy tiim rek waaye du ñu yëg du ñu yëg diisaay bi loolu lépp nag sa mbaax la ak bëgg sëriñ Touba ak bëgg a liggéeyal sëriñ ak bëgg a euh, euh, ndax yow li la ñor lépp mooy ndamul ndamul sëriñ Touba rek kon bon mangi ngi maase ak mbokk taalibe yi ndar ndakaaru lépp ak yi nekk fépp sax di la gërëm di la sant di la ñaanal yalla di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko sa borom yàggal kàttanal ko yalla may ko may ko may ko may ko mu def lu mu bëgg def mu defal ko Serigne Touba te ñu ànd ko moom ñoo ngi gërëm di sant di wax wa rahmatullahi taala wa barakatuh